du des nag euh, sama mbokk waa mouvance présidentielle ma leen di wax que l'heure est grave nekkuñu fii di xasante suñu biir di demante dëmm kii fii la bokk kii fii la bokk on doit être ensemble bàyyi di wax loo xam ne c'est des détails le président de la République et l'homme le mieux informé dans ce pays-là et donc tey nii c'est pas parce que Doudou Ka nekk na créer na S24 avec des hommes ñuy gis Doudou Ka à Dakar di ma gis Doudou Ka di ma gis kafrin di ma gis euh, euh, feneen si si feneen ñu ne woy booy bi xaw ma leen. donc euh, yow ce sont des motivations politiciennes non non waxuma c'est des ma ne leen su ma ko defee parce que man waa Dakar la sama yaay dakaar la juddu même bu dee waa Casamance Dakar la juddu am fi kër am fi lépp màggee fi man ma maggee fi. am fi lépp am fi ay xarit am fi ay àndandoo donc su ma demee di leen di def di leen di wax ak ñoom pour que ñu adhéré wu à la politique du président Macky Sall mais c'est pour l'intérêt de tout le Sénégal et du parti Touba mais ñëpp xam nañu ni taalibe la donc man foofu moom jaru sañu ñuy wax sëñ Touba moom ñun ñëpp ko bokk mais mais Kaffrine sama maamaati maam dafa jóge Malem Odar ñëw sanc daara Ziguinchor am fa am fa soxna Joola donc man foo dama mën a bañ a bokk Malem Odar ak ak Xodaar ak Siwon te sama papa nekk fa xalif général ñëpp xam ko donc moo tax su ma fa nekkee ma ne leen loolu warul tax ñuy def débat bi fu mu nekkul le l'heure est grave ñun yëpp dañu war booloo am ouverture comme président de la république nu mu ñu ko santé